xam leen ko suñu waay ba diine xam leen ko yàlla nag dafay tëjal li ci jëmu ju nekk na ko yow ban façon la borom bi tëjal li ci yow bàyyi nga ko inna allah tabaraka wa taala tajalla bi kulli shay لكنه التجلي الذي تجلى فينا اكبر من جميع التجليات لله سبحانه وتعالى ma ne ko dëgg la yàlla tëjal yi na ci yëpp di nekk waaye tëjal yi bu mu tëjal yi sama jëmm ci moo gën a màgg mboolem tëjal yi yàlla yi yàlla nawu dafa dajale mazaahiri xaq yi feeñuwaay yi daf leen a dajale dafa doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bëggoon naa ko waxee na ko arrêté naa ma waaye la xaq yi feeñuwaay bi nga xam ne yonent bi feeñu na ko moo bind diine lislaam feeñu bi nga xam ne Cheikh Ahmad Tidiane feeñu na ko moo bind tariqa tidiane muy lislaam di iman ihsaan bi rek mooy Mawlana Cheikh Islam Hadj ba mu waxee loolu bàyyi na ko lu may lay confirmer ne loolu ci exemple bu gàtt boo buggee defar njël te ndax ñaari kaas yu fees dell ila aratan tabax la zërëb wa fii léegi kasayni natawayni ihdaahuma bil laban wa thani bil maa wa turid an tajal nisf maa laa tafal maa jaaba rajul axun katan akbar minhu maa jaaba cheikh ana tilka al-kaasu al-kubiira allatii jama'a baynanaa haazaa wa maal mu ne ko boo gisee ñaari kaas yu fees dell benn bi fees dell ak ndox benn bi fees dell ak meew nga bëgg a defar jël naka ngay def mu ne ko pot bu mag laay jël ndox bi meew ba yëg nga def ci suukar maal nañu ne ñaari kaas yi leer yooyu muy leer Cheikh Ahmad leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax leer boobu buñ la mën a raché arifa anna hada al-mazhar min mazahir al-haq dem na ba képp ku dajeeg jëmm moo daan raché islam li nga xam ne kii comme yàlla bëgg la yàlla may la yàlla bu la bëggee nag dafay woote ci asamaan na malaaka yi inni uhibbu fulaanan wa uhibbuhu dafay oote ci asamaan na leen man kat bëgg naa diw damaa bëgg ngeen bëgg waa asamaan woote ci suuf na bëgg naa diw damaa bëgg ngeen bëgg taxu si ki sàkk nag janoog bàyyi janoog leer gi ñi nga xam ne kii ku yàlla may na ku yàlla bëgg la foog mu bëgg loolu loo ko bañ bañ doo ko noonoo noonoo ci xarxaramam ci colinam ci reetaanam ci waxinam laa bëgg ko laa bëgg ko loolu yàllaa ko def moo tax Mawlana Cheikh Islam Hadji Manes ba mu demee Soudan dégg naa ci kaset ku ñu wax nag suufu mu desir waaye daf koo dégg na borom xam-xam la waaris la ku doon Cheikh Matiane la jël na li yàlla Cheikh Matiane Chérif radiyallahu anhu bëri woon na mbooloo lool bu toogaan ci jotaay lu ma téeméeri nit warul kooku dañuy toog ci wetam di dëbb ci moom bàyyi ba mu déggee loolu bàyyi xam-xam mu ne damay dem seeti man ma mën ba mu ñëwee ci jotaay ba fekk ma mën a seet mu ngi toog ci xam-xam ma mën a seet mu ne te Cheikh Abdou ma gisee leen di mu ne ma am lu ma yëg ci sama mu ne ma muñ mënuma muñ ma jub ma jub gàttanu leer boobu muy leeral Mawlana Cheikh Ibrahima mu ne ko bu ma ko nuyoo lu ma njëkk a wax bàyyi mooy ne ko lan am taw bi mu waay loolu laa njëkk a wax bàyyi ndax yow yaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na ko tontu ko na ko lesu rasulullahi walakinahu akli wa sharabi wa kulli wa jisi du ma yonent bi de waaye yonent bi mooy sama lekk mooy sama naan ba sama lépp mooy sama gannaaw jotaay bi noonu la laaj waaye nag bu nga joxoon dafa naan naaw sama borom. waaye konoon bu ñu dee ko wéeti konoon bu baax mu reculé. xam ngeen ne bàyyi wax dëgg yëpp bu bu xam sax amat ñu continué. bëgg naa yéen a damaa ba damaa mujj nekk ci moom. ku dem ba wax loolu nga xam ne la kooku. waaye rasulullah nas bi annani safiirun lahu fi kainaati wa muxallatu gis naa yonent bi moom moom ay ambassadeur ci mboolem kaayinaat yi arab yi nag bu ñu waxee kaayinaat kullu ma yabdu baada hadara pour mu leen kaayinaat lépp luy dox ci kaw suuf rek ci kaayinaat yooyu ko bàyyi yàlla baaxee ko mu nekk nomba tàkk loolu ndax kooku desalul yonent bi daal ci gàttal dem na ba ne nu ma mel ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko bëggee xam nga xam nu yonent bi yàlla mel ak yàlla kon nga xam ne loolu foor na bi nu muy jege jege yàlla nekk bi di tëjëli ci moom gannaaw bu yàlla ak bu ko am bu mu ko amalee ci naka la ko amalee mooy ne yàlla moo fi nekkoon ba fi dara nekk bu mu bëggee lu ko wéttali mu def tëjëli ci boppam bu mu defee tëjëli ci boppam péñe boppam ci boppam jëmm jooju teew ci kanam moom mooy xaqiqatul Muhammad yi kon muy benn jëmm bàyyi dafay buggee xam man noo mel yonent bi noonu laa mel nu ma mel yonent bi noonu la yonent mel yàlla kon nga xam ne boobu jigéen na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne maa alxaqi xaalatul amini ka xaalati maa al Mustafa al Muxtaari nuur abaatuli nahruhu bil malaa'ika ndax ñoo mel ne yonent bi noonu yonent bi mel ne yàlla yonent bi mel ne yàlla yonent bi dafay jaamu yàlla rek yaa sàkkal bokkaale man bàyyi damay tabi yonent bi yàlla mel ne yonent bi yàlla dafay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuhan naas sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag man noonu laa mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melokaan boo xam ne ne du dagg moom fii ci àdduna ak bële ci àllaxira moo tax keroog bu ko Mansour mën a soxla dafa hal anta rasulullahi ma ne ko lastu rasulullahi walakinahu akli wa sharabi wa kulli wa juz'i su ma yonent bi def waaye yonent bi mooy sama lekk mooy sama naan mooy sama lépp mooy sama gënbaal kooku daanaka dafa wax ne man maa yonent bi waaye ci waxin la ko waxee Mansour mën a sur daylu wut ci la ko bàyyi wax ngir xiib bu xiib bàyyi xam doonoon ñi nga xam ne ñoo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hal anta Isa idan ndax yow yaa Isa ñi nga xam ne yow xam aaxir zaman waaye nag lastu Isa walakinna Isa bi jaybi duma Isa la waaye Isa mu sama biir xol mu ne ko hal anta Mahdi idan waaye nag lastu Mahdiyan walakinna al-Mahdi dirhamun fi jaybi wa sayfuhu bi yadi li ma mën a diw rek waaw mën a diw dërëm la sama biir poche dèjà seen i sama loxo xam nga ne ci am jaan loo xam ne al mën a diw mi dina parce que yàqu nga bëri xam nga mën a diw si ñun la bokk xam ngeen ne dina jël suñu tarixa bi te ku jël tarixa Cheikh Ahmed Tidiane boo bëggee am am maarifa la pour de dina naan ci xarit moo daan laaj ma mën a loolu mooy moo daan laaj Cheikh Islam nga xam ne dafa jeex ci yéen léppam moom la ko jox mu ne sax daf koo jaaxal nit naka lay amee beneen mbëggeel ci biir xolam muy doom nga bëgg wala sa soxna wala sa xaalis wala sa nangam mu ne loolu daf koy yéem ndax dafa jàpp dafa jàpp na mbëggeel kenn waru bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nit bu demee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko waaye moom mu ne mu ngi sant yàlla wa kullun wa laylahu wa barhamu murtalan bi ahmada xayri nnaasi ayni baayi wa min xasani jaaru alayhi wa innani mubarrizu aqwaami awaana sidaay dem ba ne wa inni abdullahi tatlu kitaabahu wa jambi rasulillahi dara fare mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama lekk mooy sama naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp luy nit di di ut rek boo demee ci xarta yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko ndax fekkee ne taar yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy aynul bahaay mooy jëmmu taar taar bu mun di am rek du taar yonent bi taar boobu dafay jeex muy sa jabar wala sa doom wala leneen loolu dafay jeex fekkee ne da ngay ubbi askan askan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ci askan ndax huwa xayru naasi moo gën ci mbindeef fekkee ne da ngay ubbi alal nag yonent bi mooy joxe ndax allahu al mu'ti wa ana al qasim ak leneen bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mooy joxe waaye man maay seetal lépp luy yàlla di joxe rek mu ngi ko jaaral ci leneen bi sallallahu alayhi wa sallam pour nga bàyyi teel a xam wa moo tax mu teel a dem ci géej googu nga xam ne ne laa saaxila lahu amul tefes mu tànn fa tànn bu yaa bu bëri ba képp ku am rek ci ndesi ci tâche mi ci nga amee moo tax mu ne affaire yi day yéeme ñu xaqan wa inna allah qaadira alal ghaybi bi duuni hidaaya dëgg la man la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may ba képp ku mu may rek ci des ci sama may ci la la maye ndax dafa wax ne fa minhu ataani al ilmu wal faydu wal hudaa wax na fokk bi yow kaan naka yaam mu ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci laa jëlee fayda ci laa jëlee maarifa ba képp ku am rek ci des ci sama may ci la amee kooku mooy moo naan achal sama xaaj bi nga xam ne jeexal na léppam ci yonent bi ay waxtaan waqti wa saati sant li dikri salaatan wa madhan xasul fi jëlema samay waxtu sama saa yëpp jël naa ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy màggal moom Mawlana Cheikh Islam Hadj Ibrahim ñi nga xam ne feeñuwaay la ci feeñuwaay dëkk yi ñi nga xam ne ñoo ko doon réeroo naa ñi nga xam ne ñoo fi doon bàyyi koo di dem Mousseni saa yu demande seen mbëggeel ak seen cofeel dafay aju ci Baye Sakh rek ndax bu suñoo bëgg a tàpp tool moom bu àggaan seen séeréer yëpp ak seen waxtaan yëpp mooy Baye ci Baye moo doon yëngu ci sama ci Baye moo doon xam-xam ci Baye boobu daal xam lu nekk rek ci gaw daal ba ñu amutoon Baye xam Baye ñu bëggutoon Baye bëgg Baye ñu amutoon xam fee ci Baye ñëw pour xam kan mooy moom relation bi sama am na ku ku daan déglu waxtaan boobu ba mu ko déggee mën a daal yéen kër bu nekk rek bu ngeen ñëwee xamatuma kan la yaakaar naa bu si bu ñëwee dina ko wax. mu ne leen yéen kër bu nekk rek bu ngeen ñëwee da ngeen wax seen sëriñ nangam seen sëriñ nangam moo doon yéen a moo doon nangam man daal dinaa def seeti seen sëriñ boobu ba mu ñëwee kaw rek laaj xanaa baa ñu la ko bàyyi mooy Dakar. mu laxasu waaye continué dem Dakar ñëw Dakar laajte ana bàyyi ñu ne ko mu zaawee si Ahmad mu dugg ci zaawee bi. mu dugg ci zaawee bi dajeeg bàyyi muy tëdd ci jukkeem sëbbi ci jukkeem ña nga naay sol ay verre. ba mu ñëwee na asalaamaaleykum bàyyi gëstu wàccee verre bi ne nii. ko ba fii. waa ji àgg ci yàlla ne inna ilaa rabbika muntaha boobu mooy leer bi nga xam ne yàlla mayar na ko jëmu Mawlana Sall ñu mën xam xawaayi xaq tey la ko yàlla amaloon pastage la def nga xam ne nga nee demit Cheikh Islam sunóob bi léegi la soxla du wala pour soxla nga leen di rajab rañaan bi nga xam ne am na ci rek loolu doy na nga leen yàlla ci la rañaan woon yéen a sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu ko sonalee balaa mu ko tegee ay natt yu di jeex ba mu bëggee tegi natt ya yeneen bi moom bàyyi ko Makkatal Mukarrama ba ci ay na ne leen dafay uti wàllu ñu ne ko doo ko fi amee ndax lu ngay woote mënuñ koo dégg fekkee na ngay woote na yàlla moo la yónni ñun xëpp nga ñu fekkee na ngay woote na yàlla la yónni ñun mënuñoo la mënuñ laa dégg yemut ci loolu waaye dañ koo soxal sànni koy xeer yu ay xale yu koy sànni jigéen ñi koy sànni di koy wëy yaram deret ji di commencé di sotti yeneen bi jël deretam bi di koy raxal ci kaw ci kawam ndax xam na ne yàlla bés bu deretam soxee rek yàlla dina wax rek àddina ba mu ñibbi këram nag yeneen bi yebal jibril wala yàlla yebal jibril ak alquran ñëw jëlee ko bayt jëlee ko makkatal mukarrama jëm baytul maqdis mu ne ñaan ne ko rek la fekk téeméeri junne yéen ak ñaar junne yéen ak ñeent ci biir ci biir baytul maqdis mu ci leen ñoom jël suba dara ñaan ko ci asamaan su njëkk fekk yoon ci yàlla aadama la jibril ko ànd ak Muhammad yónnee ko yónnee ko mu fëgg asamaan si yàlla yoon ci yàlla Yaxya ak Isa jibril fëgg kookal la jibril ko ànd ko yónnee mu ci jël ko di dem ba asamaan si juróom ñaareel fekk yoon ci yàlla Ibrahima jibril fëgg kookal la ko ànd ak Muhammad yónnee ko yónnee mu ci ko si di ànd ak moom dem Bayti Mamour dem Sidratul Muntaha dem Kursiyu dem Arsh di dem ba dem waaye jeex na ko fii laa mën a yem